waaw suma réaction moom mooy euh, tey Bougane ñëpp xam nañ ni man suma xarit la sama frère la te jàmbaar la tamit parce que nekk na koo xam ni au moins lu ñu jëm a ñafe pour créer ay emploi mais man tey ji comme moom rek laa man dama am sama société mais tey man impôt daf ma fayeeku impôt daf ma redressé ma fay donc dama jàpp ni képp koo xam ni sénégalais yi tey boo xoolee médecins yi gendarmes yi militaires yi policiers yi tey ji boo xoolee impôt bi nga xam ne moom la sénégalais yi di fay moom la ñuy jël di ko fayee ñu nga xam ne ay jàmbaar lañ yoo xam ni dañuy liggéey pour avancement dëkk bi donc le conseil que je lui mooy tey ñu bëri tey ji dañuy xaw a lëndëmal xelu askan bi lëndëmal xelu askan bi mooy yow tey bu fekkee da ngay liggéey yor société fayal impôt am na sax impôt sax ils sont tolérants que dégg naa ni am na montant boo xam ne boo fa tolloo mën nga bind lettre sax demander gars yi bal la li si des mais nag mënuloo nekk ci réew mi man ci sama gis-gis am société di liggéey di gagner ay millions nga ni du ma fay impôt nag la conseil que je donne à mon frère Bougane mooy na négocier ak gars yi mu dem joxe dara liggéey liggéeyam te bañ a jël affaire bi def ko politique parce que soo ko defee politique da ngay yàqal sa bopp rek parce que sénégalais yi nga xam ne peut-être comprendre nañ yor nañ société wala ñu xam lan mooy impôt du ñu ànd ak yow te man ku ma xam xam ni position yu bëri bien vrai que ni forme ak Bougane mais des fois sax ma défendre ko ci ay yenn position mais nag du ma d'accord nga yor société nekk sénégalais war fay impôt nga nii man damay def politique saa yu ñu ma waxee fayal rek damay jël affaire bi tudd politique ni man dama contre nguur gi moo tax ñu may fayal ko kii ku nekk opposition ak ku nekk pouvoir moo fi yem sénégalais bu ne soo yeewoo da nga war a fay man mi di wax waa impôt fisc ñu may déglu dañ ma redressé te dama fay kon nag Bougane la conseil que je lui donne mooy mu dem fay même bu fekkee ni am ko l'intégralité mu dugal dara gérer mais boo bëggee jël comme encore une fois sa ay presse sa ay nit ku nekk taxaw naan wooy dañu bëgg a tëj parce que non ñun de bëgguñu ñu liggéey waajaa ngi créé xamul nit mun nga bañ a fay impôt nga créé cinq emplois mais nga créé dix chômage parce que nanguloo fay impôt donc nag la conseil que je donne encore une fois à mon frère Bougane mooy su ma doon moom damay dem mu négocier yëkkati li ma am joxe parce que ñëpp xam nañ ni jàmbaar la borom jom la animation la démarré woon ba tey mu yegg si fi mu yegg si il le plein droit sénégalais la mu ne bëgg naa prétendre nekk président de la république mais moom comme dafa ñaan yàlla nekk président bis bu nekkoon président du bëgg benn sénégalais bañ a fay impôt donc le conseil que je lui mooy mu dem négocier ak gars yi bañ ñu lay toroxal wala ñuy jël sa bagage devant tous les sénégalais parce que état kenn du xeex ak moom voilà. a

nga xam ko directement wala indirectement yaa ngi fay impôt parce que yow mii tey jii même soo amul société soo jëndee paquet suukar paquet suukar bi waroon jar 400 ñu jaayale ko 600 fayaale nga TVA fayaale lépp fay sa impôt noonu lan la koy daggee mais yow mënoo yor société boo xam ni d'envergure bu mu am ni tey jii ñu ne ameel nga état Sénégal 2 nit ñi taxaw naan leer na wala leerul comme état bi taxaw na ñi yow danga leen ameel mais man je connais des gens yoo xam ne gis naa seetaan naa Mamadou Ibra Kane bërki démb mu ciy expliqué te li mu expliqué dafa clair ñoom ils ont donné de l'argent dañu fay comprendre la donc le conseil que je donne à mon frère Bougane xam mooy lan na dem mu négocier ak gars yi impôt mun nga ameel vingt milliards soo ñëwee soo dugalee avance joxe dara mun nañ mun nañ jël li nga joxe avance chaque fin du mois loo am nga joxe soo demee ba mu am quelque temps bu la neexee nga bind sax ñu baal mais mënoo ni du ma fay bu ñu waxee nga ni man damay def politique parce que dama bëgg a daaneel Macky Sall moo tax c'est logique man maa ngi nii ñëpp xam nañ ni Macky Sall laay supporté di ko jàppale mais élection locale yi Tëngéej dama dem bokk ci coalition boo xam ne du Benno Bokk Yaakaar donc man wutuma lu neex nit wala lu neex président pour di ko défendre mais je défends le Sénégal képp ku fii liggéey tey Seneweb bi nga nekk nii salaam ma ko moom day fay impôt man am naa organe de presse damay fay impôt même su tolluwul ni di média donc nag nit mënoo am sa organe de presse nga ni doo fay impôt loolu c'est pas normal waaw non fi mu téye rek moom mooy tey ji peut-être Bougane xam nga nit mun nga ñëkk parce que mënuma la wax nii la nii la directement nit mun nañ la harceler harceler harceler nga dem ba ñëkk taxaw sur la défensive mais bu mu nangu loolu moom dafa am ay nit yu bari yoo xam ni dañu yaakaar société am pour dund waxuma sax moom lañu yaakaar parce que nit yàlla la yaakaar dafa créer ay société ay sénégalais di ci liggéey yor ci seen njaboot bu mu leen lor na dem mu waxtaan ak état.